ba Cheikh Bamba la ko wam sa sin ñépp far gëlëm mu topp magam Cheikh Moustapha lépp daal leer ñu déggoo juboo tey ànd lu wax mu daal def ba bay tool bi mbay moo xam ne àll bi lépp leer jumaa ji borom Tuuba digal nit ñi door dem mu ànd ci ak Cheikh Moustapha wi def dina leer. Seytaane wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen télévision ma fàttewul Bichri TV comme niñ leen ko waxoon ni ba tey ñu ngi ci màggalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sawaal muy bis boo xam ne ci la ñuy fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sunu jàmbaar ji comme niñ leen ko waxee woon ci suba ba tey nag siyaar yooyu ñu ngi di ko amal ba tey niki noonu comme ni ñu ko wéel di amal ñu ngi ñëw ci kër soxna Tahira Mbacke euh, maa ngi maa ngi maa ngi jégalu kër soxna Ndiakhate Mbacke mu sëriñ Abdou Lahad waaye ñu fekk fi doomam ju baax ji nga xam ni mooy sëriñ euh, Jiidi Mbacke nga xam ni moom bokk na ci njabootu sëriñ Touba bi waaye di doomi Serigne Cheikh Abi Mbacké mi nga xam ni surtout ko présenté yoonu murit ñëpp xam nañ ko ñu fekk ko fii gis ngeen ko ni ñu amalee barabi ziyaare ci barabi saa su nekk gis ngeen ko ñu fekk fi mbooloo mu takk moo xam ne ñoom it ñu ngi ñëw ngir ànd ak moom ci liggéey bu rëy bi nga xamante ne da ko sumbal Serigne tubaa di ko def nga xam ni comme ni ma ko waxee ci li rek ñaanu Serigne Touba gu nekk day doon jëmm ju koy firi mooy sëriñ bi da doon ñaan zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil mustafa taj taydu sët bu baax boo xam ne day yeesal yoonu lislaam te jàpp naa ne ku gis sëriñ bi gis li nga xamante ne moo topp ci ginnaawam di nga xam ni kon la ko maamam digalan ma nga ca mooy ay ndaw yoo xam ni da leen di yee tarxiye tasfiye leen te loola defe naa ne mi ngi ci ndax sëriñ bi da koo waxan ci lu jiitu yaa ayyuha sibyaan in xiftum xajal faqaddimu taalluman alal amal kon sëriñ bi ni ñu def rek mooy taatan la suñu micro Euh, di la laaj tey ban mbégte nga yëg ci bis bii nga xamante ne dañ ko defal sa maam ju tedd ja muy sëriñ Abdou Lahad Mbacké. waaw salaamaaleykum sant yàlla julli ci yonent bi sant sëñ Tuubaa di leen nuyu yéen waa euh, Muridiyat yooyu euh, waa Bichri di leen siyaar wér-wér ci bis bu mbokk bis bi ñu defal sëriñ Abdou waaw bis bi de comme ni ñu xëyee bu suba ba tey fële ci kër ci kër gi rek ñu jàng alxuraan xasida ak berne mooy nañ ko diglee rek waaw noonu lañ ko yendoo waaw tey jii ñëpp ñu ngi fi nii pour teew fi pour ñu màggal ko sant seen baax bu baax baax ko nañ ko diglee woon waaw nañ ko war a def ci lañ nekk muy jàng alxuraan jàng xasida ak berne waaw mooy xel ma rek liggéey rek waaw loolu lañ nekk lu war a daayira yi daje fi nii ngir bis bi. waaw moo waral ñu dajee fi ne ngir fii di jébbal si ak pëseef ak liggéey bi ñu doon def boobu ba tey tey jii lañ ko doon mottali looloo waral loon daje bi waaw di leen sant comme ni ko ñëpp defaree ci kër yëpp yi ngeen jaar yëpp rek noonu lañ ko defee fii nii ban message ngay joxe ci tey fi diine toll ban message ngay joxe ngir ndaw ñi ci ab yar waaw delloo yar bi ak taalibe bi mooy jiitu ci mooy fonkaat waajur yi bu baax a baax moom fonkaat waajur bu baax a baax comme ni ko sëriñ bi digle woon waaw góor góor ci liggéey bi liggéey ak jaamu yàlla waaw mooy nekk ci ndigal yi wattu tere yi bu baax a baax waaw gën a jàppaat waajur yi lu jàppoon waajur yi la ñu gën koo kii ndax lépp waajur yi la waaw comme noonu sëñ bi diglee rek nekk ci loolu te dëgg ñi mu àndal liggéey bi ci loolu lañ nekk ndax ñu ngi nii seeni waajur lañ àndal liggéey bi sax waaw waaw noonu daal lool la rek lépp daal di liggéeyal sëñ bi rek amul lenn lu génn sañ bi waaw lu nekk noonu lañ koy defee muy guddi muy bëccëg ci rek ndax mën nga noo hmm. alxuraan mhm. waaw mu daan wax ni sëñ Tuubaa ni moom la alxuraan mhm. loolu daan leeral la chaque jour mbir sëñ weer ci kaw asamaan mhm. moom mënoo séentu weer te doo gis asamaan. waaw noonu la sëñ Tuubaa suñu borom de moo waral diggante ko alxuraan de woon ba gisee nag ndaw ñi nag waa li mel nii la ciy baax mooy ak gindi ndax mel ne lampe bu gunóor yi ñëwoon ba tàbbi ca dee dee tax andi leen ñu dafa am leer gu leen xëcc waaw ñoo am luñ gis nag xamul nuñ cey jariñoo waaw looloo waral ñuy def nii ñuy def ndaje gi ngir gën ñu gën a xam sëñ bu baax ba gën a xam nañ cey taxawaa waaw looloo waral yëpp waaw di leen sant yéen bu baax a baax ci liggéey bi rafetlu seen liggéey ñaan sëñ Tuubaa lu tax ngeen koy def ngeen am ci lu kawe seen jor jërë ngeen jëf jërëjëf incha allah jërëjëf. jébbal ko ci ndoodi dëkk fa magam ja ñu ba tey ci kër Soxna Njaxate Mbàkke moom Serigne Abdoul Ahad Mbàkke waaye gis nga bi nu ñëwee di amal siyaar yu am solo yooyu ñuy amal. ñu fekk Serigne Ousseynou Fall ak Serigne Assane Fall ñoom it euh, ñu bokk ci njabootu maam Serap Fall doon amal seeni ziar gis nga ko muy la am solo kon dañu def lu talal suñu micro Serigne bi laaj ko mbégteem ci bis bii nga xamante ne bisub Serigne Abdoul Ahad la te Serigne Abdoul Ahad doonoon jàmbaar joo xam ne dafa liggéeyal diine liggéeyal islam waaye rawatina yoonu murit tey lan yan kàddu nga mën a wax ci mbégte mi nga xam ne yëg nga ci ñëw fii ci màggal Serigne Abdoul rawatina ñu fekk la fii ci kër Soxna Ndiakhate Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad ñoo ngi sant baax dañoo ziyaare si soxna si ni nga ko waxee muy leerul sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad nag moom daa dimbali Sénégal gépp wax dañoo gën a xamal sëñ Touba gën noo soññ ci liggéey liggéey boobu mu woon nag te sëñ Touba saxaloon ko fi soxna si moom da cee ne di liggéey di yëngu mënoon naa toog rek ne doomi seex la waaye loolu it ay maamam dañ koo jël ndax maamam sëñ Touba ci boppam moo njëkk a santaane ñoñam ñu yëngatu ci liggéey moom wàccut kenn loolu nag ba mu ko xamee ba tey dafa taxaw ne ci boo demee fee muy liggéey ca tool ya nga xam ne euh, jigéen ji man góor la li ñuy wax di ko ñaanal sama borom yokk fanam wérali cëram te dajale ko ngërëmal way juram waaw loolu daal ci gàttal loolu lañ ci jërëjëf jërëjëf xamul ku néew doole xamul ku auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barkeb Sëriñ Tuubaa kon mbokk taalibe yi niñ leen ko xewoon rek xam ngeen ni ni nga xamante ne noonu lañ ko doon amalee ci suba ba tey muy dem ci barabu ziyaar yi nga xamante ne njabootu Sëriñ Abdoul Ahad Mbacké dañ faa nekk eh, jëmm ji ñu eh, eh, jàkkaarloo nag mooy Sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Sëriñ moom moom Sëriñ Cheikh Abi nga xam ni euh, yàlla dogal na at yu yàgg ngi nii muy def màggal gi nga xam ne mooy màggal Sëriñ Abdou Lahad nga xam ne mbokki taalibe yi rawatina bokk yi nga xamante ne mooy bokki xaside yi ñoom ñëpp dañuy daje fii di def màggal Sëriñ Abdou Lahad gi nga xam ne bu guddigee daanaka mboolem duruskat yi ak xeeti jàngkat yi xaside yi ñoom ñëpp dañuy daje fii di def màggal Sëriñ Abdou moom mii nag muy koo xam ne jàpp naa ne euh, ñi nga xamante ne ñooy seetaan Mafaatihul Bichri TV ak seetaan organe yi miin nañ ko muy koo xam ni bokk na ci ñi nga xamante ni dañuy jëmmal ñaan googu Serigne Touba doon ñaan te mooy sët bu baax boo xam ne day yeesal yoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu suriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa taj tayru mu bokk ci ñi nga xam ne tey Euh, bari na fu xasida ga foo xam ne ñoom ñii bokk nañ ci ña ko fa yóbbu muy koo xam ne day tax saa su nekk yitteem jëpp mooy taxaw Sëñ Tuubaa ci liggéey yu tedd yi nga xamante ne da koy amal rawatina ci xasidaam yi nga xamante ne mooy xasida Sëñ Tuubaa moom mit xam ngeen mooy ki nga xamante ni moom la yàlla dogal mu taxawal këru xasida goo xam ne mi ngi ko taxawal ci ndigalul Sëriñ Sidi Muxtaar muy liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñëw nañ fii nag ñëw ci kër euh, soxna Njaxat Mbàkke ñëw ci kër Soxna Njaxaan Mbàkke moom sëñ Abdou Lahad moom it ñu fekk ko fi ci lañ ko tàllale suñu micro euh, laaj ko euh, dëgg-dëgg mbégte mi nga xamante ne am na ko ci màggal bis bi nga xamante ne Serigne Touba ci boppam moo ko jëkk màggalal boppam muy ganeek àdduna ak Serigne Abdou Lahad Mbàkke muy bis boo xam ne dañ ko ciy fàttaliku te xam ngeen ni comme niñ ko baaxoo di waxee nit ku baax sax ku koy fàttali dañoo wax ni yërmande suñu borom dafay wàcc inda zikri saalihiina tanzilu rahma mu mel ne mboolem murid yaakaar sëñ Tuubaa yëpp tey ay doomi sëñ Abdou Lahad lañ mboolem murid yaakaar sëñ Tuubaa yëpp tey ay taalibe sëñ Abdou Lahad lañ ngir fi nga xamante ni fa la yóbbu yoon wi ak liggéey yu rëy yi nga xam ne def na ko ak jom ak pëstéef ak bëgg sëñ Tuubaa kennal ko doyloo gi nga xam ne def na ko ci taalibe sëñ Tuubaa yi loolu sëñ Abdou Lahad ñu tàllal la suñu micro rek ngir màggal gi nga xamante ne mooy màggalu sëñ Abdou Lahad tey te nga ci ci def liggéey bu rëy ñu dina laaj tey ban mbégte daal nga am ak it ban soññee ngay joxe ci bis yu mel rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñ koto sant ci seen taxawaay ko rafetlu ñëpp fa bokk bisum suñu daal bisum murit yëpp la doonu ne rek ñoo koy def déedéet mais képp ku yaakaar suñ Tuubaa rek war ngaa bokk ci biir ñi nga xamante ni ñoo ay doomam ak sëtam dañ caa jiitu di ko taxawee rek waaye taalibe yëpp it ñu koy am nañ ci yéene jooju euh, bis bi nag sëñ Tuubaa ci boppam bi sëriñ Abdul Ahad gënee àddina dafa waxoon ne am naa ci moom yaakaar waaye mbooleem euh, ku yaakaar sëñ xam nga yaakaar jooju sëñ amoon ca moom tësut yaakaar tësut yaakaar yaakaar ndaxte mhm. boo xoolee euh, ay jëfam mhm. tereel sëñ Tuubaa ci dëkk bi mhm. am tux ak sàngara ak musique bu fekkoon loolu képp la fi def. doy na doy na ci kii waaye ñëw tere loolu demaat képp jaar na loolu loolu mission la ku ne xam ne diirub li mu fiy nekk doon bu doon doon Serigne Touba bayu ko xel sax tëri bi rek lay xool ndax àgg ci bi demee ba am juróom-ñaar fukki at ak ñeent nga xam ne mu ngi jëm juróom-ñaar fukki at ak juróom ma koy ñaanal naan ko yàlla nga fi yàgg te nga mhm. naan sell bi la xool nga ne ko yàlla nga am ngërëmul sëñ Tuubaa mu ngi amin mhm. mhm. te daa nga xam ci ci mujj ñi ñi daan teewlu ay waxam ñëpp ñu ci bëri daan leen wax naan leen jub naa ak sëriñ bi dundoon du pëstéef man du bi ay at yi may gis ci man ay du ay tekkin ci man at am lu ko ëpp ndax mu teggin ci man xoolal pas-pas bu kawe boobu nga xam ne koo xool jàpp woon sëriñ bi ñëpp wax am naa ci moom yaakaar rek boobee nag a xam ne yaakaari sëriñ bi tas mukk ci àddina loolu bokk na ci li ci gën a tuuti moom euh, kon yóbbal bi ñu ci joxe. mooy di soññ suñ bopp di soññwaat mbokki taalibe yëpp ci bis yu mel nii bu ñëwee luñ ci man di gën a góorgóorlu ci njàngum alxuraan mais njàngum xasida mi ñu di ko def njëkk màggal ga képp ku ci dégg ci njabootu sëriñ bi màggal boo xamante nii jàpp nañ ko ci rek euh, lañ ca war a euh, gën a barkeeloo mooy kaamil alxuraan yi ak xasida yi loolu moom képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa war nga cee def aw sas ci sa bopp kon euh, euh, ñu ngi leen wax ji du jar muy gudd waaw dañoo xaw a wax moo tax waaye ñu ngi leen di ndokkeel daal di leen jaajëfal ci bés bi euh, te leen ñaanal ngeen dajee ci tawfeexi sëriñ bi jaa ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seex Abdulaay jëfam yi moom lay tontu. ba Cheikh Bamba wam sa sin ñëpp far gëlëm mu topp magam Cheikh Moustapha lépp daal di leer ñu déggoo juboo tey ànd lu wax mu daal di def ba bay tool bi mbay moo xam ne bi lépp a leer jumaa ji borom Tuuba digal nit ñi door a dem mu ànd ci ak Cheikh Moustapha wi def dina leer